an kulli sooyin waasan wa jannati yanqaadu minni ya salaamu an sala bi alihi wa afdalil mala mbootuk Baay Seex si li ñoo ñëwaat rek di sey si waat soxna ami nag ànd ak soxna Xadi Njaay jiite mii magam ak soxna Màggan Ndóoy mii moom da xam magam muy alaaji Maas Mbeng ma nga xamoon ca Ndakaaru mooy magam mu ñëw nag di yeesal ak njébbalam di ko jaarale ci ki ko yàlla booleel di joxewaat boppam ak léppam ci kër gi ndax ab sëriñ kat kenn du ko am ñaari yoon man ngaa maslaak ñëpp waaye benn sëriñ rek ngay am te wax dëgg yàlla euh, sëriñ Fallou Gala Sill moom ku ko dégg muy wax da nga xam ni alali sëñ Modou Rokhaya la sëriñ Cheikh Anta dib sëriñam kon nag xam ne bu wér nii ak bëggam soxna Ami li mu bëgg am ko ci sëñ Fallou ci yow la ko mën a jaarale ndax xam na ni moom fu mu mën a jëfe ci àddina jëf ko ci yow moo mooy mbégteem su su nekkee benn mu xañ ko ñëpp jox la ko loolu loolu mooy mbégteem sëñ Fallu mooy tax sëñ Fallu gën koo gërëm gën koo bëgg kon nag mu mel ni indi indi na teraanga yam daan indi di sàkku barke ndax xam na ni kuy sàkku barke ci ëttub Baye Cheikh Syll ci ëttub sëñ Modou Rokhaya koy wute kuy sàkku barke ci ëttub Baye Cheikh Syll ci ëttub sëñ Modou Rokhaya nga koy wute looloo waral muy sàkku barke indi lii xeeb ko lool ñaan Mbàkke nga ñaanal ko ba déwén mu def lu ko faw xa ndax la nga ko waxoon bis bu set du xëyee gis ko yokk ga nga ko waxoon nee na mi ngi sant yokk na bu wér nit nag du fekkee ni da nga am sa kilifa mu ñaanal la wax la ko mu mu amee nam la ko waxe woon nee na nag su taxawee na ko seere ñépp dégg ko ndax wa ama bi ni'mati rabbika fa haddis kon nag Serigne Cheikh moom sëñ Abdou Latif mii la ko sëñ bi di seereel soxna ami kat sa teraanga ji sëñ Basiiru seere na ko Mamor Jaara seere na ko sëñ Fàllu seere na ko ndax sëñ bii toog mooy jarbaatub Cheikh Mouhamadul Muntaxa waajuram ak sëñ Muntaxa bokk nde lépp muy doomi sëñ Abdu Latiif moom Mamor Jaara sëñ bii toog keneen mënoon na fee teew ci waa kër Cheikh Mouhamadul Fadal du tee mu seere ko waaye hasard amul sëñ Fàllu mii di sëñ Galas di doomi sëñ Abdul Fatah moo ko sëñ Galas mais seen ñaari maam bokk ndey ak baay kon loolu hasard amul kon dafa mel ni sa jëf ji sëñ Tuubaa nangu na ko kon daal euh, sëñ bi soxna ami daal mi ngi yeesalaat ak ngébbalam bu baax sëriñ Abdou Lahad mii moom sëriñ Abdoul Wadood moom sëñ Modou Farmatam sëñ Afe ak soxna ndeyum sëñ Abdou Lakaram moom sëñ Afe di jarbaat ci di di di di di jaamub sëñ bi di rakkam di léppam moom itam du fi teewee rek mel na ni sëñ Moustapha Lakaram teew na fi sëñ Afe teew na fi ñaari yoon kon nag soo na ami sa jëf ji daal na nga xam ni saa boo koy indi rek pëseef bi nga àndal moo lay gàttandu ba ñi koy seere ci waa kër sëñ Tuubaa yi macha allah fii nag tey Serigne Modou Rokhaya bég na ndax Mbàkke léegi la sëñ Jili Ñang ak ñi génn ci biti di wax rek ni waa kër sëñ Tuubaa yi de yaakaar naa ni kër gu fi teewul amul. waaw kon Mbàkke ñi ngi ñaan nga yàgg fi teewul lii ma sëñ Fallou sama jëwriñ jii di def loolu it sawar naa ci lool sañ Cheikh moom dafa bokk suñuy royukaay. mu ni ma nag amu fi kàddu ndax yaay léppam sëñ Fallou moom léppam maam Cheikh Anta mu sëñ Mor Lo xëy la ku ko xam ak ku ko xamul ci ndigalam lay xëy ci lay gont ñun ñii bokk ci ñi muy faral di waxtaanal ñun xam nañu loolu bu wér a nee nag lii nga xam ne dañ ki leen di dañ leen di tudd di ko tudd moom muy seen jëwriñ rawaate na soxnaam si Pastef gi nga xam ne defaat na ko ci bés bii nga xam ne tukki gii mu jógee bërki démb nee na dafa ne li mu ci jële lépp da koy yemale ci bésu maam Cheikh Anta bi loolu la def ànd kaak mbokkam yëpp it ànd kaak sama seddoo ana Ndiaye waaw soxna Ndiaye ànd kaak moom ak mboolem waa këram nee na mi ngi lay dénkaat njaboot gi ndax ñoom ñii ak jëmmam ji kenn moomu leen ku dul yow te xam na ni jàpp nga ko jàpp gu wér ba jàpp gi nga ko jàpp ak sa taxawaay bi nga am ci yoon wi moo ko may wàccuwaay bi mu am moom te lii may wax sëñ Cheikh mii mu sëñ la Latif seere la ci ndax tey jii sëñ Muntaxa bu ne woon tëll dugg fii bu dee wax ku koy jottali du ni sëñ Cheikh du ni du ni sëñ Cheikh Anta mi danaan galasile mën nga ñëw toog ni jotal ma loolu bu ko amee ci sëñ Touba yow yaa ko may kër sëñ Tuubaa yi amu fi fenn sens di te loolu yow la sëñ bi sa taxawaay la sa pastéef la duñu tudd diggante boroom Daaru Salaam ak Cheikhul Khadim duñu tudd diggante sëñ Modou Mamoun ak njaboot sëñ Tuubaa ji waaye sa waajur sëñ Modou Rokhaya li mu liggéey digganteem ak njaboot sëñ Tuubaa loo soxla ci njaboot sëñ Tuubaa mën nga ko am te yow bi nga ñëwee itam doyloo woo liggéey boobu di ko ndamoo wala di ko tiitaloo déedéet dangay sof da nga ci dolli loo xam ni sax daf ñuy yéem ñun muy biir réew mi di bitim réew daje naa ak moom daje nañu Italie sëñ Cheikh laay gis mu ñëw bu ñëwee ci kër sëñ Touba leen ko fa siyaaree yëpp mu ni ma téyel bu ma téyee ba noppi ma foog ni xëy na dama ko waral jekk-jekkal rek jox mu def ci poosam mu làmbaat poosam dajalewaat lim. ni ma nan ma ko defal ci kër sëñ Tuubaa gi kon kooku tukkiwul pour wut xaalis day liggéeyal sëñ Tuubaa kon Mbàkke ñu ngi lay gën a dénkaat sunu mag ji sunu waa ji njaboot gi itam di leen gën a dénkaat xam ne teg na leen ci yoon ndax mënoon na ni soxna si li nga ñëw li nga indi jox ma ko am naa yitte waaye def ko ci bisu boroom dërëm ak ngërëm dootoo tàggoog dërëm dootoo tàggoo ngërëm te ñii mën nañ ko seede wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. soxna Ami Sey. soxna Ami sëy gis nañ ci dëkk bi lu bari. mais gis nañ ci dëkk bi lu bari. di Daaru Salaam. di Daaru Salaam. di Sénégal. di Sénégal. ku jóge ku jógee ndol-ndol. ne te ku jóge ndol-ndol. ñëw Touba jébbalu si. si. wala ku jógee. laañaar wala ku jóge laañaar ñëw tubaa jébbalu si ñëw tubaa jébbalu si ba wut fi borom kër ne ba wut fi borom kër waaye ku nekk ca diggante Makka ak Madina nag waaye ku nekk ca diggante Makka ak Madina kaaba gi fii kaaba gi nekk fii yonent bi ne fii yonent ngay wax ak taalibe sëñ tubaa ngay wax ak taalibe sëñ ci téléphone ci téléphone waxi téléphone rek waxi téléphone rek ba mu yàgg nga ni ko ba mu yàgg nga ni ko damay ñëw damay ñëw damaa bëgg borom kër. damaa bëgg borom kër. te yow laa bëgg. te yow laa bëgg. damay ñëw def si ko. damay ñëw def si ko. damaa bëgg a liggéeyal Serigne Touba. damaa bëgg a liggéeyal Serigne Touba. loolu ci soxna mi sëy rek lañ ko mës nag ci soxna mi sëy képp lañ ko njëkk a gisee lañ ko mës a gisee. seen mbir yéen ñi ko mës seen mbir ci yéen ñi rek lañ ko mës a gisee. kon lu ngeen fi mën a def itam. kon fi mën a def itam. da ngeen ñuy jéem a jommal da ngeen ñuy jéem a jommal rek. <laughs> waaye ñun duñ mën a jommi sëñ Fallou nee na lépp sëñ Cheikh Anta rek la nee na lépp sag ñaan la Mbàkke nee na moom lu mu am sag ñaan la lu mu jot sag ñaan la lu mu mel sag ñaan la kon nag ñii di waajuri soxna Ami Sey dafa mel ni seen doom daal dafa mel ni seen doom daal sëñ Tubaa ngeen ko dénk sëñ Tubaa ngeen ko dénk kàddu yi ngeen dégg. ndax kàddu yi ngeen dégg. soxna Ami Sey. soxna Ami Sey. nekkul ci loxol sëñ Fallou mii rek. nekkul ci loxol sëñ Fallou mii rek. yem ci yem ci. waaye suufus Daaru Salaam si da koy aar. waaye suufus Daaru Salaam si da koy aar. ñi dëkk Daaru Salaam ko aar. nee ñi dëkk Daaru Salaam di ko aar. njabootuk sëñ Fallou gii di ko aar. njabootuk Mamor Diarra gii di ko aar. njabootuk sëñ Afe gii. ak ñi fi tase ñëpp ci ñu baax. ñi ma gis ak ñi ma gisul waaye nii ngeen def nag bu ko ñëpp defoon bu ko ñëpp defoon jigéen ju nekk jël sa borom kër sa borom kër def ko muy sab sëriñ def ko muy sab sëriñ ngay liggéey di ko jox liggéey di ko jox ngir sëriñ Touba ngir sëriñ Touba ngir maam Cheikh Anta ngir maam Cheikh Anta ngir Daaru ngir Daaru Salaam bu ko jigéen ñépp defoon bu ko jigéen ñëpp defoon li ëpp ci jigéen ñi. kon li ëpp ci jigéen ñi. ay wàlli wi la jur. ay wàlli wi jur. wala ay milliardaire. wala ay milliardaire. wala ay président wala ay ministre. wala ay président wala ay ministre. ndax jigéen moom. ndax jigéen moom. moo mën a fàggul doomam barke. moo mën a fàggul doomam barke. loo def ci sa borom kër ci lu baax. loo def sa borom kër ci lu baax. suñ borom dina la ko fay ci sa njaboot. ba noppi am na geneen pay goo xam ne moo la koy fayal boppam. ba noppi am na geneen pay goo xam ne moo la koy fayal boppam. kon soxna ami sëy bi nga ñëwee laxasaayu ni may sëb sëriñ man day sawar naa ci lool ndax man dama dul taalibe buy dellu ginnaaw déedéet liggéeyal sëñ Tuubaa du ma ci dellu ginnaaw du ma ci yox-yoxi du ma ci ragal dara kanam rek man ca kanam rek Mbàkke ku dem ma dem ku demul ma dem kon dama dafa mel damaa gis ni noonu ngay doxee wala boog fu may liggéeyale Serigne Touba bu ma geesoo gis la kon yaa ngi topp sama ginnaaw nee te yoxi yoxi woo kon nag yow uh, ak bokk yi nga àndal yépp yéen ñi nga xam ne sëñ Fallou Galas mooy seen jëwriñ muy soxna Njaaya soxna maam Faati Gay soxna Ami Sey yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal suñ borom barkeel seenu njaboot ngeen am ngërëmal sëñ Fallu te am ngërëmal sëñ Tuubaa te suñ borom may leen wér dolli seen sutura dolli seen sutura sutura moom du ngeen tàggook moom mukkati amin nee sutura moom. ba ko Serigne Touba joxee maam Cheikh ba ko Serigne Touba joxee maam Cheikh Anta. defarug àddina ak alaaxira. defarug àddina ak alaaxira. te ngeen teqali koog dellu ginnaaw. nee te ngeen teqali koog dellu ginnaaw. Serigne Fallou mii di seen seen wasiir di seen di seen jëwriñ. Serigne Fallou mii di seen jëwriñ. na leen ne. leen wóor ni. lii nga indi. lii nga indi. day yokk day yokk. da ngeen di yokk rek. da ngeen di yokk rek. waaw bu déwénee. ne lu la neex nga lu def ko ko. nee du déwénee lu la neex nga def ko ko. man gi dana yokk. man gi dana yokk. xéwal yokk. xéwal yi dana yokk. wér gi dana yokk. wér gi dana yokk. kon nag nii rek lañ koy defee. ne ànd ak teraanga ji. ànd ak teraanga ji rek. ji rek. ba ba ñu ànd dugg àjjana. maa ngi wax ci turu soxna ami Seye affaire yi xas sax waaye dañu ko waroon a wax cee kër ga moom nee na mi ngi sant bu baax a baax di doolee sant. ñaari waajuram teg ci sëñ Fallou Gallas la mi ko suñ borom booleel mu boole ko sëñ see Anta soldaaru daa salaam mu di ko liggéeyal heure bi daaw lañ taxawoon fii mu ñaan kon lam doon ñaan suñ borom nangu na ko ndax nee na ko woon bu fekkee suñ borom nam mën a maa liggéeyloo ci daa salaam bu déwénee lu ma defoon yàlla na yokk te na ma fekk ma dem si réewu arab yi réew yi sori yi ba ñibbisiwaat nam ko waxee woon ni la amee turki la far dem sax fu kawe njortam ñun ñi bokkal kër sax dafa dem ba egg rek ne damaa tukki dañoo defoon Dakar la dem kon nag loolu googu ñaan nangu na noonu la visa bi jàppandee lépp noonu la jàppandee kon nag mi ngi sant ki ko yàlla booleel di santa sëñ Cheikh Anta mi nga xam ne moom la ñaan gi nangu moom lam ne woon mooy sëñ Cheikh Anta si maam Cheikh Antaam rek loolu moom gëm na ko moom ndax ñaan gi nangu na yokk gi yëg na ko moom li muy ñaan nag bu déwénee mu gën a yokkuwaat bu baax a baax ak lépp loo xam xamante ni rek am na ko wala ak njabootam am ko walay mbokkam yàlla bu mu génn sëñ Cheikh Anta ak sëñ Fallou Galass Sylla lu mu liggéey ci àdduna rek nee yàlla bu mu génn sëñ Fallou Galass Sylla ak sëñ seex Anta ku ko fekkee ren yàlla nga ko fekkee déwén ak at yu baree baree bari yokku ba yëg ko waaye ñun nag ñooy wax ci suñu du ñun doomi Baye seex Sylla yi man maay waxaale taaw ba ci caat ndax xaj see nekk mag waaye xaj na doyloo nañ ma ku xeebu laa ko suufee nag waaye kàddu gi delloowaat nañ ko maa ngi koy jël kàddu gi ci kàddu soxna Ndey Sylla egg si ci yaa asu Sylla ba ci soxna Baali soxna Ndiaye soxna Mambar ba ci bàjjen Faati Caat ak soxna maa Awa ak góor ñi ak jigéen ñi ñëpp ñu ngi sant ñu ngi gërëm di ko ñaanal lu mu am ci ëttub Tayba bi ak lam am ca Ndakaaru Ndiaye yàlla na ci sëñ borom teg loxo sant nañ ko gërëm nañ ko sant mënut paase sant dañ koy ñaanal sax waaye duñ ko sant waaw buñ noppee nag ñu jëlaat suñu loxo teg ko foofu ñëw ci soxna Khady Ndiaye mi nga xam ne waajuram lañ tuddee soxna Ami Ndiaye mu jàppale ko lool def ko ni mag jum mbokkal ndey ak baay jooyul soxna Issa Ndiaye nee na mi ngi ñaanal yaayam ay yaxam seddu waaye jooyu ko benn yoon da koy ñaanal rek ndax fu mu ko waroon a féete rek na ko fa fu ko bàjjanam bi waroon a féete soxna Khady Ndiaye féete na ko fa ak njabootam maam tàkkoog nday ñasak xaadim dibaag bàyyi jiiteeg ñoom ñëpp rek bul ku lim daal da ngay juum matal sant na ñëpp bàyyiwul kenn lu ci des nag ci man mii la desee waaye moom desewut ci moom sant na gërëm na di sant ku mu àndaloon ñëpp xaritam yu jugee woon Touba. bu jugee jug nañ ànd ak moom xàccandoo dóorandoo doomam yu góor yi ak ganam yu jugee woon baaleen ñëw. boo gisee nii ma ñëw jógee fii ba piir kontaan ci ni Amy Ndiaye mel rek moom moo tax ma ñëw fii ba jóge fii ba Pire ñëw yàlla na ko yàlla ak sëñ Touba nag jàppale ba lu man rek bu déwénee yàlla na mën lu ko raw daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam